dal leen ak jàmm xibaar ci doon koy door ak dossier médical bu Ousmane Sonko bi nga xam dañ ko tasaare woon ci internet bi teg nañ loxo ñaar ñoo nga xam ne ay gradé lan de administration pénitentiaire enquête bi ñu jébbaloon waa DIC ngir ñu identifier ñi nga xam ne ñoo fuité dossier médical bu Ousmane Sonko mu ngay avancé bu baax DIC nag dafa entamé woon ab recherche ngir teg loxo képp koo xamante si laale nga ci ci bi lépp divulgation te noonee conseiller ñi nga xam ñoo laale ci bile publication du dossier médical bu Ousmane Sonko dig nag teg ñaari gradé de l'administration pénitentiaire muy kii di Idrissa Sow nekk inspecteur de l'administration pénitentiaire ak Sandione moom itam moom nga directeur des affaires juridiques de la planification des statistiques de l'administration pénitentiaire waaye itam nekk nga xamante ni si moo di adjudant bi ñoom ñaar nag li ñu leen di toppee moo violation de secret professionnel détournement de données à caractère professionnel waaye itam acte de manœuvre à compromettre la sécurité publique ba tey ñu des ci wàllum xibaar ak cour de justice bu CEDEAO moom nga xamante ne démb amal na délibération bi nga nga xamante ne si ne si ñoo di bu CEDEAO ngir karaame nguur gu Sénégal mu dugalaat kii di Ousmane Sonko ci liste de liste électorale waaye mu daat koy jox ay fiche de parrainage loolee waraloon daal ñu daal dem ci cour de justice bu CEDEAO ngir lay fa boobu tàmbali mbir démul eh, avocat Ousmane Sonko eh, demoon nañ fofé ci cour de justice bu CEDEAO wak nga xamante ci Modi Juan Branco ak Maître Clédor Ciré Ly waaye daal boobu lépp mbir dañ ko ajandi ba le 17 novembre bi ñu jëm inshallah allah ci la wo di trancher li nga xamanteni ci Modi moo di joxé na ku ci nek dal di xam fu nga fété muy digënté état bu Sénégal ak ki di Ousmane Sonko muy coow li nga xamanteni mo doxone digënté Abindour ak Viviane ba sax ñu dal di mujjé ci gendarmerie bi nga xamanteni ci Modi moo bu ki di ki di Abindour nak doomu bu jigen bindu demoon nañ dembu jakkalo ñi nga xamanteni ci si ñoo di attekat yi ca gendarmerie bu Faidherbe waaye itam dañ leen a mujjee libéré auditionné leen ba pare waaye dañ leen a bàyyi ñaa delluwaat ca seen i kër loolee nag la ko waraloon mooy kàddu yoo xamante si ni kii di Aby Ndour daf ko yëkkati teg ko ci kaw Viviane ginnaaw ba nga xamante ne si kii di Viviane dafa gañoon lii di trophée Trace Award ci réewum Rwanda mu nekk trophée boo xamante si ñëpp sénégalais ñu ngi ko rafet waaye itam dafa amoon ay vidéo yoo xamante ne si dafa am ñu ko génne daal koy dugal ci réseaux sociaux daal di wax ni Viviane day gaaruwaale Aby Ndour te loolu lépp am ci dafa nekkoon loo xamante ne si benn malentendu kese la bu nekkoon seen diggante te sax Aby Ndour ba mu doon wax waxul woon Viviane waaye ki nga xamante ne si moo di actuel euh, actuel femme bu Bouba Ndour moom la doon waxal ci boobu la vidéo waaye nit ñi daal dañoo jàpp ne kii di Aby Ndour da doon gaaruwaale ki nga xamante ne si moo di Viviane coow la nag ba mujjee sonal Viviane te la demee daal leen di porte plainte ca gendarmerie bu fédéral bu ba coow la daal daal di mujjee foofu léegi nag gim na di ñuy wax yéen ci ki nga xamante ne si moo di Aby Ndour ak doomam libéré na leen ba ñoo nga delluwaat seeni kër loolee moo nekkoon li nga xamante ne si moom ngeen andiloon ci seen tënku xibaar ñu jox leen dig daje daje ba beneen yoon incha allah.